xaqiqatul xabasi dëgg-dëggi fo kullu laibin mooy mépp po xadd mën at moom tere na min ci moom sharixatu nabi yoonu yonante ba wa min bokk na ci fo jaayisun aji dagan wa min bokk na ci fo ma po xam ne musiba askaneef na ko ilaa karahatin jëm ci ak sipp wa min bokk na ci fo maa po moo xam ne nudiba soppeef na ko jaayisuhu aji daganam almasxu moo di kaf ma as sadiqi ànd akub xarit bil xaq ci dëgg laa xayru du caa génn lu dul dëgg xalat taxqiqi ca dëggal ga makruhuhu lu ñu sibam moom fo iksaaruhu moo di ak barilam iksaaram ak baril li annahu ngir naka moom yow bàyyeexu dana sànq al amaara dund ya man doobuhu lu ñu soppam moom fo alxabasu mooy fo bil xalilati ak soxna maanaam jabaram wal wala di ak doom mbaa nga ne wal ak xale muy gone ak saxiiri guy aji ndawe daa bàyyil radilatan caay caay wa jawwasoo daganal nañu alxabasa fo bi sax mi ci fet kazaniki nii bil kal ci ab xaj wal farasi ak fas fadri xamal almaqada jàppukaay ba mu kàllaf mu di ab jullit rawante ne mu di ab taalibe war naa watandiku mépp pox moo xam ne lislaam da koy aaye mënees naa takk nag ne mépp pox moo xam ne kee day teg kee teg ku dàq rek jël ko ak nuñ ko mën di defe rek carte la lu araam la mu ne nag dafa am po mu dagan am pox mu ñu sib am po bu ñu sopp po bu ñu sopp mooy mi nga xam ne boo ko defee te am ci yéene am ca tuyaaba po ba ñu sib mooy mi nga xam ne boo ko defee doo ca am bakkaar boo ko moytoon a xam ne gënut ñu bindal la ca tuyaaba ca moytu ga po mi dagan nag moom man ngaa song def ko te doo ca gàddu bakkaar mu njëkkee po mi nga xam ne moo dagan mu ne mooy ngay kaf ak sab xarit te li ngay wax ak moom lépp di dëgg nga xam ne lu kaf ga neex neex dëgg rekk ngay wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana kaf waaye da daan sàmmonteeg lépp lu wax ci kaf gi rekk muy dëgg ndax bu dee kaf ba tax mu wax ca loo xam ne du dëgg itam dañ ko koy bindal muy bàkkaarub fen dañuy bañ sax muy wax doomam naa ko kaay ma jox la nàngam wala mu bëgg mu noppi ci jooy yi muy jooy ba tax mu koy wax loo xam ne naru ko du ko def da koy nax rekk po ma ñu sib nag mooy kaf googu ñu wax ne mën nga koo defal sa xarit tey wax rekk dëgg kaf googu soo ko barilee ba mëpp ñu sib ko ndax yaa ngi sànq rekk sag dund te ak dund des ko war a fonk di ca moytoo bàyyi dara muy jàllute jariñuwoo ca ndax su ko am yaari yoon kon kaf ga nayam rek bu ëppee rek ñu sib ko po mi nga xam ni moom lañu sopp nag mooy fo ak soxnaam wala fo ak xale bu ndaw moo xam doomam la moo xam du doomam ba addis ba waxoon ne kullu lahwin yalhoo almuminu batil illa talaata mulaahabatu rajuli imraata bu wa ta'diibu farasihi wa ramyuhu bi qawsi foo ak soxnaam day tax seen diggante gën a am jàmm ñu gën a am ak déggoo foo ak xale bu ndaw rawantina fóon ko day wane yërmande te yàlla daa bëgg ku bari yërmande fo nag ci jongante ci ay fett ba xam ku dàq jam walla jongante ci war ay fas di dawal ba xam kuy raw dañ ko soppan lool ci lislaam ndax lislaam booba daa soxla woon góor ñu dëgër ñu mën nga war ñu mën a jam ndax jihaad dañ doon def ci toolub yàlla bi booba sax nangu woon nañu ñuy course ci fas wala ñuy joŋante ci ay fet wala ci gëléem ba noppi am teg bu ñuy teg boo xam ne ku raw wala ku jom ci dàq gaa jam fab teg ba waaye nag am na ñu koy defee ba nga xamee ne du def kenn ku ne mooy teg waaye daal la gën a gaaw ci kursu ba aw yoon lislaam bañ koo aaye mooy ab jaambur tegal leen tey dañuy wax ne ba ñu nangu ñu teg ab teg ci kursu baag jongante ci ku dàq jam yépp day fekk ñu jubloo tàggatu ba mën a taxawal islaam bu lislaam soxlaa ñu jóg taxawal ko loolu nag daa mel ne dafa jeex tàkk li ëpp ci payu daal léegi bëgg rekk bànneex ak mu neex ci nit ñi rek moo cay am xeeti po yi nga xam ne nag moo xew léegi jamono mel ne karaté ak lu mel ne football ak lu mel ne bëre moytu rekk ci gën a wóor buñ laajoon boroom xam-xam sax bu ubbee ci ne bëre daa araam mbaa karaate daa araam itam ku yebu jàpp ca jooja wax ndax buñ gisee li nga xam ne moom lañu yàq ci alal ci bëre karaate lii tam ne mënees na caa ñàkk bakkan mënees na caa ñàkk ab cër mel ne ñu dóor ko rek mu jaare ca bëtam pat mbaa mu daanu rekk damm doxee ca làggi nga xam ne xeeti polo yoo xam ne dañ ci yàq alal mënees na caa ñàkkaale bakkan mënees na caa ñàkkaale cër te amul benn njariñ kon buñ laajoon boroom xam-xam mu aaye araamal ko itam du war a bette xeeti bëri karaate daal moom ab jullit da leen war a moytu bu leen mënee bañ a seetaan sax moo gën te ba leen seetaan day njëkk a xam li yàlla aaye ku ko gis ci bët mu wóor ko ne loolu amu ca mu door a seetaan mbaa boog bu tàmbalee seetaan gis lu bokk ci loolu rek daal di gaaw teggi ay bëtam loolu nag moo xam daa teewe fañ leen defe wala muy seetaan ci télé mbaa cinéma mbaa feneen ñooye moom àtte bi benn la lu mel ne football nag moo xaw a tane réew yi àtte lislaam sax daañu koy def ci seeni dëkk ak di ko defi feneen waaye moom it dañuy sart ñu koy def di sàng seeni awra dara bañ caa feeñ góor gi jigéen bañ a jaxasoo te itam ñu farlu ci bu waxtu julli jotee ñu dagg lépp dem julli ci doora dellu ca loola moo tax moom itam néexuta sàmmoonteel na mu ware xeeti po yi daal moom ab julit ab taalibe bu bëgg a rafet lislaam rafetub taalibe daal saye boo rek mu leen di moytu ci wet gu ne wa nazarun xool li ajnabiyati ñeel jaambur bu jigéen kadaaliki nii la tala dudun akuk bànneexu bi xawlihaa ci waxam ja daa bàyyil daa lii wa ak lii bokk na ci mata moytu mooy góor di xool jigéen joo xam ne jaambur la ci moom mooy sëy araamul seen diggante moo xam jigéen jaa ngay sëy moo xam sëyut dana araam góor gi di gis ci moom dara lu bokkut ak kanamam ak teng ya bu fekkee nag daa ci xool kanam ga te xool bu jublu ca am ca bànneex regalu ci tam fitna loola kon wàññiwul dara ci wax ji gën a wóor waaye bu ca ragalee fitna du saña xool bu ca jubloo ak bànneexu itam noonu du saña xool jigéen ji itam niñ ko waxe woon war na bu dee génn baa mu toog foo xam ne jàmbur bu góor mën na ko faa fekk mu sàng yaramam wépp ba mu des rek kanamam ak ay tengam rawante na mu jóg ne day siyaare ji mbaa day dem ci loo xam ne daal dañ caa yaakaar tuyaaba dañoo jëlali sax xool gi waaye dañuy aaye bànneexu ci waxi jigéen maanaam jigéen joo xam ne du sa soxna jàmbur la ci yow ay waxam di la neex ndax bu la wax ja neexee loolu mën na laa ñoddi ba nga gisee ak moom ba jotee ak moom jotee bu aay ndax dañuy wax naa mbir yi day tàmbalee ci xoolante bu ñu xoolantee kenn ku ne mën naa muuñ bu kenn ku ne muuñee xëy na nuyoo moo cay topp buñ nuyoo jàll waxante moo ca topp buñ waxantee mën na am ñu joxante rendez-vous buñ joxantee rendez-vous nag tase ca rendez-vous boobee mën na am lu yàlla aaye am ca ñu wax nazratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaau ñu seetlu foofu ne jaxasoo góor ak jigéen dafa bare bari ba nga xam ne mën nañuy jaxasoo kenn du yëg dara ci sa moroom daanaka waaye du tee nag lañ waxoon ne moom la jigéen war a sàng ci yaramam ba tey war na koy sàng lañ ne woon góor sañu koo xool ci jigéen ba tey dañuy aay rekk ku xool loola wa aklu maalin naasi lekk alali nit ñi bi xayri tey bi nafsi ci ludul tey bu bakkan ay doon ba tey xaruma araam na xindal xulama ay fa xam ñaa ab jullit day fexe ba alal ju dugg ci loxoom rek di alal ju lew ni ki luñ ko jaay mu jënd mbaa luñ ko may ab ci mboolem daal xeeti anam yu dagan yi waaye araam na ci ab jullit muy lekk alal yu jàmbur ci anam gu dëgganut li mu ne sax te xolam seddu ca bu ca xolam seddoon te taxut mu daganit du baax mel ne ku lool ba nga xam ne nangu na nga lebal ko xaalis bu lay fay si tegal la ca dara xoolam dana ca sedd waaye du ko tax a dagan daganul ci moom daganul ci yow ndax yoon ci boppam mooy ay rek leble xaalis booy fay si di ca teg dara ba tawit ku ñuy liggéeyloo di ko fay lañ koy fay rek ca la war a yem waaye sañuta laaj ab neexal buñ ko joxee ab neexal tam waruta nangu ka ñëw nag am aajo ca loolee koo koy liggéeyee te xam ne moom bu neexaliwut du am lam bëgg la muy doon doon àqam di yellifam neexle dong mooy tax mu jot ca mu neexle nag ndax jot ca loola nee nañ la mu def sañ na ko waaye nag kookee nangu moom ma ngay nangu lu araam moom mi nga xam ne it mooy ñëw ngir am soxla su ko yëkkati su ko wóoree ne bu joxewul dara it du tee ñu defal ko la muy deflu ca waxtu wa ca nam jaadoo bu bëggee nag lu gën a gaaw mbaa lu ëpp yellifam ba tax mu joxe neexalit def na lu araam ndax dañuy aaye joxe sa alal ngir bëgg ñu jox la loo xam ne yëlloowoo ko wa minhu bokk na ca nag maa la nga xam ne saa dafa xoo fiiroo naag moom wa dox yette wooyeef ko li ak li ci jëm ci ak lekkam min ajli kasratil xayaa ngir bari kersa bokk na ci lekk alal jàmbur te xolam seddu ca nag nga fekk rek ñi lekk ñu wala ne la ñëwal lekk te fekk na dañu am rek kersa waaye amuñu ca yéene dëgg-dëgg kon buñ ko wooyee ne ko ñëwal lekk balaa dem na am firnde ju wóor ju ko leer ne ñii woo giñ koy woo dëgg la ci ñoom su fekkee loolu wóoru ko rek na bàyyi bañ a dem waaye itam dañoo bëggoon balaa kenn woo kenn naa ko kaay ci lekk gi fekk mu yéene ko ko ndax woogam koy woo te yéenewu ko ko ak naafiq la gu nekk ci moom te it koy woo ba lekk loo ko loo xam ne su waa ji xamul ne kenn yéenewu ko ko xay na du nangoo lekk loo xam ne yéenewuñ ko ko kon balaa kenn woote ak lekk ne kaay lekk na ko wóor ne li muy wax dëgg la ci moom yéene na ko mu ñëw lekk moo mañ ñi woo itam balaa dem wuy ji na am firnde ju ko wóor ne woote biñ koy woo luñ ko yéene la wa mën a oo tere nañu ay ban ba tey anil xakim yi jële ca yàlla mi xakim walla jële ci alquran mi aji bari xikam alhamsa hamsa wal lamsa ak lamsa xalat taxrimi ci kaw araamal wal hamsu hamsu ñu koy wax regaju aybun mooy sikkal ab jaambur bi ishaarati lu yooni ci junjëg bët ya wal lamsu lamsu bil lisaani nekk na ci làmmiñ ñu koy wax al lamsu ngelaju mayis na nga ràññeele yaa fatt yi nan yow aji xellu bokk na ci yi nga xam ne mukallaf mu di ab julit rawante na mu di ab taalibe war na koy moytu mooy sikkal ab jaambur ci kaw rega joog bëtam wala sikkal ab jaambur ci kaw ñela joog làmmiñam alhamsu ak dañoo bokk ci xeeti jëw yi fexe ba xam le sikkus jaambur te xappati woo wax ci làmmiñ bu wér a wér mel ne mu wax sikk sa ba noppi rega joog bëtam jëme ci kooka ñu xam ne kooka lay wax walla mu wax sikk sa ba noppi tàllal catu làmmiñam jëme ci kenn mbaa ñenn ñu xam ne kooka mbaa ñooña lay wax loolu moo tudd alhamsu rek ak allamsu ñelaju alquran da ko aaye lool ak yisit noonu am na ci alquran waylun li kulli humazatin lumaza ak kam doon xas naa hammaasin mashaa'in binamiim ak addis ba wax ne alhammaazoona wal wal mashaa'oona bin namimati albaaxoona lil buraa il ayba yaxshuruhumullahu fi wujuhil kilaab ñi nga xam ne ñooy sikkal jaambur yi moo xam ci regaju la moo xam ci ñelaju la di dox di rambaaj ak di fekk ñu amul sikk ñu leen di sosal ay sikk ci kaw tooñ rek bu ëllëgee bu leen yàlla dee pang ci bis penc seeni kanam day mel ne kanam yi ay xaj ibnu xibbaan andi na ko wal aklu araam na itam lekk alal nit ñi bi diini ci diine lekk alal nit ñi ci diine mën naa doon laaj leen seeni alal ne da nga ko jëmale ci diine ni ki tabax jàkkaar yu ko nuru ba noppi nag jëmali ko ca am na beneen lekk ci diine boo xam ne mooy nit ki di feeñal ak ragal yàllaa ku mbaax ba nit ñi yaakaare ko barke di ko jox seeni alal loola itam lu fés la lu araam la mën naa am itam nag moom feeñalul ak mbaax bëggul itam ku ko jàppe ak mbaax waaye nit ñi ci boppam ñoo rafet ci moom njort rek jekki-jekki di ko jox seeni alal ngir yaakaar ca barke bu ko wóoree loolee ñu foog ci moom nekkul ci moom du sañ a nangu mbaa bu nangoo mu defal leen ko ci leneen lu am tuyaaba ci gàttal kuy jox alal joo xam ne xam nga ne nangama tax ñu la koy jox te loolee amut doo saña nangu ni kuñ jox asaka te mu xam ne jëlloowul asaka du saña nangu lu mel ne nag ñuy joxe ngir sëriñ bi addiya la te moom bokk ci waa sëriñ bi ka koy jox it bokk gi bokk sëriñ bi rek moo tax ma di ko jox seetu ca leneen man naa daal di nangu ni ki nga xam ne mook ñoom bokkal bàyyi ñëpp mbaa ñëm bokkal maam ñëpp la koo koy maasale di jox su andeeg beraate nag am kum jàpp ne moo gën a baax ba tax mu di ko beral nag la koy jox loola mat a seet bu fekkee ne kooka lañ ko foogee nekkul ca moom du saña nangu mbaa bu mënta ñàkk nangu bu ko nangoo mu defal ko kooku ci luy andi tuyaaba bu ëllëgee wa bi shafaati ak ci ak tinoo ku yàlla may daraja mu mën a tinu nit ñi ci kanam yoon tinu googee du ca sañ a laaj dara lu mu ca laaj rekk mu araam wala bu dee borom daraja yoo xam ne mën naa toppatoo nit ñi seeni kayit ca fa ñuy toppatoo kayit ya ni ki ñuy tukkee ka commerce ak xeet yu deme noonu da leen toppatool rek ngir yàlla waaye sañu caa laaj dara su fekkee la mu leen di toppatool dafa aajo nag paas dem ak dikk ak lijjanteeg fay mën naa laaj kon mboolem fere yooyee moom ñu jox ko ko waaye nag jëmmi daraja ji daal loo ci xam ne mokk ko ca may du ca sañ a laaj dara wa hakasa sa ki ni taqiru fi'li taaxatin yéexee def ak topp yàlla yéexee def ak topp yàlla cee jublu yéexe julli juróom maanaam yéexe kenn ci julli juróom boo waxtu wa jàll ci lu dul ngànt loolu daa bokk ci bakkaar yi gën a mag ndax lislaam gëm yàlla moo ci jiitu bu jàllee julli juróom ñoo gën a màgg ci lislaam kon nag yeexe ci genn ba waxtu wa jàll ci dul ngànt bokk na ci bakkaar ya gën a rëy charul wara ñi yées ci mbindeef yi alladina ñooy ña nga xam ne yaxudoona danañu jàpp am waala na ay alal bi diine ci turu diine wa yakuloona teñ koy lekk bottoonuhum seeni biir takkoonu danañu nekk kal xusóori mel ni ay njënde maanaam mel ni ay njënde daañu alxasru njënde jublu ci dëkk bu mag daañu ko wax itam wax ko jublu ci pale tabax bu rëy rëy waxa dañ ci ëllëg wakkal buyooti ak niki ay néeg doona zuurin ci lu dul neen tasxaa dana dox alxaqaayu bu jiit ya maxal xayaati ànd ak jaan ya fiihaa ci seen biir ya bi ta'dibin ci bugal bilaa mamaatin ci lu dul dee wayata adza dana loroo kullu man képp koo xam ne finnaar yi nekk na ci sawara min nat ni butoonihim ci xesawuk seeni biir idar riifu ndeem gelaw wa taxin lu dana gaar mooy dana feeñ dana génn mu ne ku daan lekk alal nit ñi ci turu diine bu ëllëgee suñ boroom day réyal biiram ba toll ne ay pale mbaa ba mu toll ne ay néeg yu yaatoo yaatu sol ca nag ci biir yooyee ay jaan ak jiit ñi di ko mettital di ko màtt te du dee ba noppalu te mu ne biir yu rëy yooyee yu yaatu yooyee xet gu naqaree naqari da ciy génne goo xam ne ku bokk ak ñu nekk ci biir sawara da nga am mettit ak ngaañ lool ci xet gu naqari googee bàyyi ko ci seeni biir nga di ko yëkk wala la foo déddi ñeel mukallaf suxbatu faasiqin àndaale ko saay saay wala xul tatuhoo du caagéenu jaxasoog moom li xëyri durrin ñee lu dul lor musjalan ak lu mën di doon wa man yusharikuhum ku bokkaaleeg ñoom xunaa fii fii xisihim ci seen tedd nga yekkul mu nekk sharikahum di aji bokkaaleeg ñoom xadan ëllëg fii dëllihim ci seen toroxte wajitani boo na ngeen teet mooy na ngeen moytu xultata haulaay jaxasoo ñii li annaha ngir naka jaxasooga min aqbahil ashiyaay bokk na ci gën jaa boni yëf ya mu jàll ci li nga xam ne ab julit war na koo moytu rawante na ab taalibe mooy di ànd ab kàccoor boo xam ne day boroom doole ju ragalul yàlla wala ku falu nguur àdduna koo xam ne alal ja koy dikkal dafa léewut da koy jële rekk ci baadoole yi ñu mel noonu nee na mu kàllaf mu bëgg a sàmm ak njulitam wërta jaxasoo kenn ci ñooñu lu may nag jaxasoo ba daa mënta ñàkk mel ne am lu mu fay toppatoo te mënta ñàkk dem toppatoo ko mbaa am ñu fa téye seen yëf mu dem di wax ak ñoom ndax bëgg ñooña jot seen yëf ngir yàlla képp koo xam ne daal day boroom doole ju ragalul yàlla alal di ko dikkal joo xam ne day bàyyi ko ci baadoole yi ci anam goo xam ne du yoon mu kàllaf mu di ab jullit rawante ne mu di ab taalibe war nay moytu jaxasoog moom jaxasoo goo xam ne mën naa ñàkk su mënta ñàkk nag na mu ko waxee woon ci beneen téere muy mu nawiru sudóor nga fexe moom ba xam luy imaan islaam ihsaan mu fexe ba duñ ko génn mukk ci kuppundalu imaan islaam ihsaan na fexe daal ba buñ ko yóbbaale ci dara ci lu aay ba ba muy tàggoog ñoom ci coobare yàlla mu ne ñooñu nag jaxasoog ñoom fii ci àdduna day faral di neex waaye nag ni muy doone aw neexit ak teraanga noonu lay soppi ko ëllëg toroxte ak naqar mu ne nag ku bokk ñoom seen tedd nga fii bu ëllëgee faaw nga bokk ñoom seen toroxte foofee mu ne kon dee leen moytu jaxasoog ñu mel ne ñii ndax jaxasoo googu moo gën a mën a yàq lu ne laakin waaye moo wëndeelanteeg ñoom xadd nu di bat soppeef na ko kama bi nafsin naka mu nekk ci biyax fii hadisin ci ab hadis xadd sabata bopp sax na waxadduhaa dëgg-dëggi mudaaraatu irdaauhum mooy seenu gërëmloo maanaam seral seeni xol di xëyri maa ci lu dul loo xam ne nuxiya tareef na ko makruhan mbir mu muy lu ñu sib xul aw muharraman wala muy lu ñu araamal walam taliq waaye du yell illa li xaalimin dara ñeel aji xam kamilin ku di aji mat xadd kaana ko nekk na daa xadaalatin di boroom mandu wala yamiilu te du jeng fala aalimu aji xam ja aljaa'iru ka di aji jeng laa taliixu du yell bi ci moom wa misluhu am kemam la aljaaxilu aji réer aydan ba tey fanta bi na nga yeewu mu ne nag boroom doole joojee mbaa boroom paluk àdduna googee su fekkee ne mën na laa yàqal sa diine kon daañu sopp nga mu daaranteeg moom ba am jàmm mën a sax ci sa diine mel ne ni réew meloon ca bu njëkk ba fi ceddo yi nekkee ak ba fi tubaab yi nekkee nga xam ne mu ne nag mu daarante gi muy wax kat mooy nga fexe ba ànd ak ñoom ca la leen neex seeni xol sedd te fekk loola naqariwul yàlla nga xam ne daal la nga serale seeni xol du lu yàlla araamal du lu yàlla sib loolu moom boo ko defee rafetal nga teggin sa digganteek yàlla rafet rafetal teggin sa digganteek mbindeef yi yàlla yi moo tax ñu wax ni mu daarante googu sopp nañu sax jamono yu ne nga di ko def ak mboolem doomi aadama yi ci kaw suuf mooy kenn ku ne nga ànd ak moom ca la nga xamee ne neex na ko ba tax siinum ànd rafet te fekk loola naqariwul yàlla ndax saa yoo àndanteeg nit ànd bu rafet ci loo xam naqariwul yàlla tax ngeen déggoo ba mën a jaxasoo rek sàmm nga teggiin sa digganteek sa boroom sàmm teggiin sa digganteeg sa moroom la aay kay mooy li ñuy wax almudahanatu wayaf diine bay ànd ak nit ci loo xam ne neexul yàlla wayaf diine ba di fekk nit di ànd ak moom ci loo xam ne lu yàlla araamal la mbaalu yàlla sib loolu moo tudd almudahanatu mu ne it buñ nee foofa kat ña falu nguur ga wala kàccoor yi am doole sopp nañ ngay mu daaranteeg ñoom du kat ñëpp lañ may ñu def ak ñoom mu daarante googu ndax ndax kuy jéema mu daaranteeg ñoom te fekkul nga xam bu wér a ni man laa yóbbaale ci loo xam ne dangay ngay defee ne aayut ndax ñàkk xam te fekk na lu aay la koo xam ne itam xam na waaye xam na ci boppam ak ñàkk maandu bu mu jéem a ñoom ndax kon la muy xam-xam ñu yóbbaale ko ci lu aay day yomb kay yi may daal mu jaxasoonteeg buur yi àdduna yi ak kàccoor yi ragalul yàlla mooy ku boole yaari melo xam ak maandu ku xam bu wér maandu bu wér daal la ñuy may mu jaxasoog ñoom nga xam duñ ko mën yóbbaale waaye koo xam ne xamul moom ak lu maandu maandu mën nañ ko yóbbaale ci loo xam ne day defe ne aayut te fekk na mu aay nga xam ba noppi itam nag ñàkk a di boroom xam-xam buy jàng itam na leen jéem a sori ndax xam nga du cee jariñ dara ndegam moom maanduwul rek wëlwul boppam mën nañ ko yóbbaale ci loo xam ne wóor na ko ne lii lu yàlla bañ la ba ñu wax nag wax yi booba daa fekkoon rek buur yi àdduna yi am doole lool te mën a yàqal nit lool diineem bu fekkee amut ak ñoom jàmm woote naag léegi ci nga xam ne mën ngaa nekk ab julit nekk ci réew mi nga nekk boo doyloo yàlla mën ngaa bañ a xam nguur ga nguur ga bañ laa xam doo jotee ñoom dara duñ jotee yow dara wala lahu déet di ñeel mukallaf talabu ridwaanil wara sàkku ngërëmal mbindeef yi bi suxti dil jalaali jënde ko merum borom màgg ga baari il baraaki aji bind mbindeef yi wallaahu yàlla war rasul ak yonante ba aji daru ñoo gën a yeyoo bi an yurub di ci mu gërëm loo leen jamihul muminina mboole mooy gëm ña fi zamani ci jamono waqad ataa dikk na fii qawli ahmada ci waxi ahmad almakiini kay aji yëkkati ko daraja salla yàlla na dolli tedd nga wa sallamati dolli woolu alayhi ci moom ku laxinin ci bépp waxtu mursiluhoo aji yónneem ja wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam wa kulli muminin ak képp kuy aji gëm bi ci moom min xis bi ca kuréelam ba ñëw na bàyyi ko ci moom xadiisu hadis gu wax ne laa taaxata deetub topp lil maxluuqi di ñeel mbindeef fii maasiyatil xaaliqi ci mooy aji bind ja fa nanga matale al misaaqa wala fa jàll ci yi nga xamee ne mu kàllaf mu di ab julit rawante na mu di ab taalibe war na koy jéem te mooy di sàkku ngërëmul yàlla bañ koo jënde ngërëmal mbindeef day seet la yàlla gërëm yonante bi jottali ko mu jaral ko lu ne bu fekkee ne bu nekkee ci loola mbindeefi daañu ko xarab daañu ko mere itam na ko am ngërëmul yàlla gënal lu ne ndax suñu boroom nee na wallahu wa rasuluhu axaqu an yurdoohu in kaanu muminin ci suuratu tawba addis ba it nee na kenn warta topp menn mbindeef ci lu naqari yàlla nga xam ne kon ku gëm yàlla gëm yonent bi daal rawante ne di ab taalibe boole ca day jiital ngërëmul yàlla du ko jënde mukk merum mbindeef su mënee boole am ca loola ngërëmul yàlla ak ngërëmal mbindeef yi loolaa gën bu yaar yépp mënta tase nag mu dellu ca ngërëmul yàlla waaye day moytu bëgg lu neex ab surga ba merum njaatige di ko ca fekk xultu wax naa ne wa man talaba kuy sàkku ridwaanal waraa ngërëmal mbindeef yi bi suxti rabbihi jënde ko merum boroomam faxum run kon ab dof la zuukara bu di boroom ngëmeen maanaam buy boroomi nelaw fa lay sa yoon du la jariñ ridal xalqi ngërëmal mbindeef yi ida lam turdi ndéem gërëm loowoo mawlaaka sa boroom waxid na nga jeng mooy naga nga daw hanza walis lii maanaam bàyyikoo ci lii sàkku ngërëmal mbindeef lida jëm ci lii te mooy jëm ci sàkku waxid na jeng mooy na nga daw hanza walis lii maanaam ci lii sàkku ngërëmal mbindeef li jëm ci lii te muy jëm ci sàkku ngërëmul yàlla wala yadurruka te du la lor suxtu man merum mbindeef ma nga xam ne xasayta mooy nga lëxoo ñeel ko ida ardayta ndéem gërëm loo nga mawlaaka sa boroom li waxoon léegi ne ab julit rawante ne ab taalibe day jiital ngërëmul yàlla du ragal mbindeef xarab ko ba tax muy dugg ci lu neexul yàlla loolu la ne man dey maa ci teg ne kuy sàkku ngërëmul mbindeef ba merum yàlla di la ca fekk danga di ab dof boo xam ne yemoo ci dof waaye da ngay nelaw ndax mu ne mbindeef yépp buñ maasee ci gërëm la te yàlla xarab la itam du tax ngërëmal mbindeef yi jariñ la dara te nag boo fexee ba yàlla gërëm la moom su mbindeef yépp maasee ci xarab la itam seenu xarab du la wàññi dara kon del daw ngërëmul mbindeef yi ngërëmul yàlla wa fi'lu shay'in def dara xabla an ma ci njëkk muy xam maa la nga xam ne xàkkama àtte na ko fii ci moom mutlaqan lu mën di doon rabbu samaay boroom asamaan mimma bokk na ci la nga xam ne xadd xaruma araam na xalaa mukallafin ci mukallaf qaddim jiitalal taalluman xamlu ala ibadatin ci jaamu yàlla wa fil kitaabi nekk na ci téerib alquran fasaluhu laaj leen ahla dikri ñooñ xam-xam ahla dikar moo nekk ci bayt wi way wee tax mu def ahla dikar tuubaa texe li man ñel na koo xam ne xam ma woona bi alimin ci xam-xam daa nazarin mbir muy boroomuk setantal mu ne mu kàllaf sañu te jekki-jekki song menn mbir te xamul la ca lislaam wax li farata ci xam-xam mooy balaa dugg ci dara rek muy ci mbirum jaamu yàlla muy ci mbirum àdduna na xam la ca lislaam wax su ko xamul te man koo seetal boppam ci téere yi wér mu seetal ko boppam bu ko mënta seetal boppam nag mu laaj ko ku xam te maandu lu nga ko wax mu jàpp ca waaye mu kàllaf sañu ta song menn mbir rek ci mbirum diineem mbaa ci àdduna te xamul la ca lislaam wax buñ delloo sax ci irwaa un nadim daañu fa fekk net li boobee nga xam ne naar ba bari woon xam-xam lool daa ànd ak sëñ bu mag bi am bis mu génn gënnuk tuxam tàmbalee bëgg tux di wax sëñ bi naa ko waaw lii loo ci wax moom de moom cooy da cee bari ak wóote da cee am sëñ bi ne ko ah xanaa kon day bu ci ay wóote amee moom kon lu lënt la mu ne ko waaw moom koy dafa lënt mu ne ko xanaa yoroo boroom al axdar yi la mu wax ne mu kàllaf sëñu te song menn mbir te xamut la ca lislaam addu mu ne ko aha mu ne ko waaw kon te nga bàyyi bañ koo jëfandikoo ba ba nga ci xam lu wóor a wóor kàddu googu nag dafa sori ca boroom xam-xam boobee lool ba fi saasay saasa mu ne tuub naa bàyyi naa ko jóg dal koy gas suul maanaam gën gën naroon tuxeeg tox ma yépp la boole gas suul wëlbatiku nag jébbalu ci sëriñ bi fekk na moom nag mu doon kilifa gu mag a mag ràññu ko woon lool nag ba ay mbokkam doon ko yedd ci jébbalu gi mu jébbalu ci sëriñ bi naa ko yow ni nga toll ci xam-xam ak diine ak nangam ak nangam di fekk ku ñuul kii ngay jébbalu ci moom mu ne leen man daal bàyyi bàyyi koo baxdaat bëgg koo xam ne xetu yàlla dana ma xeeñ ci moom ma ànd ak moom rek moo ma taxoon jóg te ci kii dong nag la ma xetu yàlla xeeñe bu ñu delloo ca irwaa un nadim daañu gis ba mu nettalee sëñ ba yedd yi ñu koy yedd ak la ko sëñ ba tontu. ab julit rawante ab taalibe daal bu farloo ci lu tollu rek xam ko dal nay bari xam-xam lool te mën na am ji ju ko bett sax bu ëllëgee fa kanam boroomam na fexe ba lu war a xam rek xam ko xam gu wér te jëfe ko jëfe gu wér ngir yàlla rek loolu rek am solo mu ne kon nag bala ngaa jëm ci jaamu yàlla na nga njëkk a jàng ba xam nañuy jaamoo yàlla xëy na desul jekki-jekki xamandoo lépp benn yoon waaye da ngay def rek loo jëm rek fexe ba xam ko fi saasay saasa bala nga caa dugg mu ne sax su borom ne ci alxuraan na ngeen laaj ña xam su ngeen xamut fekk na booba sax doon wax yéefar màkk yi naa leen xëy na ñi amoon téere mel na yaxut ak nasaraan ngeen di gën a wóolu ci waxi Muhammad kon nag dem leen kon dem leen laaj ñooñu yahoot ak nasaraan ñoom jàngoon téere yi ba xam buñ leen tontoo ngeen xam ne Muhammad mi li muy wax lépp dëgg la loolu moo doon cosaanul laaya ji waaye dañ koy jëmal rek ci gàttal ci ku xamut na laaj nga xam mu ne nag ku yittewoo xam-xam te yàlla tax mën nangoo gëstu nangoo seetantal tey jéem lu mu xam rek jëfe ko ngir yàlla kooko daal na xam ne texe gu rëy rëy am na ko fii am na ko ëllëg wa man tajarada ku futtiku li taaxatil jaliili ngir topp aji màgg ji xabla taallumin ci njëkk xamlu fa xumrun ab dof la laa nabilun bopp du aji xellu wa man taallama kuy xamlu ji maanaam kuy jànge bila muallimin ci kudul ab jàngalekat mu xaqiqin bu di aji dëggal fa innahu naka moom du wahamin borom njuumte la fajj taxidoo na ngeen farlu feneen mi ci xam-xam yaa ixwaani yéen samay mbokk wa taaxatil mawla ak topp buur bi bila dawaanin ci lu dul yéex man faatahoo koo xam ne raw na ko alhilmu xam-xam maxat taaxaati ànd ak ay topp yàlla fa soo fa yaalamu xalsat naa xam la dal mamaati fa faatu ga mu ne ku futti ku ne dama bëgg sóobu yoonu jaamu yàlla te fekkul mu amub yóbbal ci xam-xam bu wér ci mbirum diineem nga ne kat kooku dafa dof rek waaye nit lu mu xamut du ko mën a jëf ndax dañuy wax ne kuy jëf te xamut la mu yàq mooy ëpp la muy defar waaye nag jekki-jekki itam song rek xam-xam di ko gëstu yi wéy te doo jëfe itam nag ak waru la ak waru la day fexe rek ba lu mu tollu rek fexe ba xam ko bu ko xam-xam yitteelee nag mu boole ca di gëstu di ca boole itam di jaamu yàlla ndax xam-xam moom jëfi rek lay jariñ mu ne it ku jóg ne daay jàngi te demoo ci boroom xam-xam boo xam ne xam na bu wér a wér kon juum nga ndax nga sa bopp ndax lu waay laabiir laabiir lu mu amut mënu koo joxe mu xaqiq koy wax aji dëggal rek waaye mooy koo xam ne enquête na xeeti xam-xam yeeg xeeti masala yi làqu ba am cag leerlu gu wóor a wóor ku mel ne kooku nag boo jógee bay jàngi moom nga war a wuti waaye boo demee ci koo xam ne ak xamam demewul noonu it la mu amee rek la mën a joxe waaye la mu amut mënu koo joxe mu ne faru leen ci yaar yi nga xam ne mooy lépp mooy xam lu baax te di ko def ngir yàlla xam-xam ak topp yàlla daal yaar la yoo xam ne ci la ñuy amee texeeg tey ëllëg ku sàggan ba yaar yooyu raw ko nag bu tolloo ci faatu ak bu faatoo dana xam ne rawle na lu rëy rëy loo xam ne ëppoon naa rawle wal yaqtadi nay roy alxaabidu aji jaamu ja bil muttabiina ci way topp ña li sunnati rasuli ñeel sunna seenante ba ahmad te mooy ahmad al amin kadi kuñ wóolu shafihina may sunu aji ramm salla yal na dolli tedd nga allahu yàlla alihi ci moom musalliman muy aji dolli ko wóolu wa kulli man ak képp koo xam ne waalaahu méngoonte naag moom man mooy ña nga xam ne amaroo digle nañu bi taaxati rahmaani ci topp aji yërëme ja waxaat zaroo te ñuy wattandikuloo min taaxati seytaani ci topp seytaane mu ne nag àndandoo du mën a ñàkk kon da ngeen di fekk ña nga xam ne ñoo xam yoonu yonante bi te sax ca te way ca ngeen ànd ak ñoom di roy ci ñoom ndax ñu leen di teete ci sori yoonu seytaane te sax ci topp yoonu yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tani boo na ngeen di teet mooy na ngeen di moytoo ko sori ahwa a nafsin bànneexi bakkan wa ba tidaaxan ak topp bidaa wastaxiloo te ngeen di soxlawoo bi tibaaxan ci topp sunna fii kulli xiinin ci bépp waxtu idi ngir jumixa booleef na alxayru yépp yiw fil ittibaaxi topp sunna wa jumihata booleef asharu lépp ay fil ibtidaahi ci topp bidaa waaye nag booy jàng ci wayi moom fi littibaahi ak fi libtidaahi rek dañuy jàng wayefal am saga ndax way wi duumoo na ngeen sax xalartiyaadi nafsin ci tàggat bakkan abadan faaw wa xarbi shaytaanin ak xareeg saytaane wa saydin ak rëbbu lil hudaa ñeel jub mu ne fu ngeen tollu dee leen bëreeg seeni bakkan bañ a topp seeni bakkan ca la leen neex te seet lay dëgg rek ngeen sax ca ngeen di farlu ci di topp sunna te bañ a jege luy nuru bidaa ndax su boroom dafa dogal lépp lu baax mi ngi nekk ci topp sunna mu dogal nag lépp luy ay mu nekk ci topp bidaa nga xam ne boo nekkee topp sunna séenante bi wenn yiw jomb la waaye nag boo xasee topp bidaa moom del séentu ay wu ne mu ne kon sax leen ci tàggat seeni bakkan ba seeni bakkan nooy sax ci ngërëm fu ngeen toll di bëreeg seytaane di góorgóorlu ci am jub ga nga xam ne moom la yàlla gën a taamu ci ab jaamam wa baw te ngeen bañ li am fusiku moo ñeel seen bopp yaa xaaqiloona yéen way xellu maa la nga xam ne radd ya gërëm na ko almufallasoona ñañu sisir alxaasiroona ña di way perte hum ñoom alladina ñooy ña nga xam ne bayyaxoo sànq nañu amaarahum seeni dund bil maxaasi yi ci ay moy wama lahum ti deddi ñeel leen man koo xam ne yashfahu dina leen ramm ijab yéemal bukaahum seeni jooy maxal nadaamati ànd ak reccu yowmal xiyaamati ci bis penc maxal malaamati ànd ak yaraange bu delloo ci baatub ijab boobu ci ñiy gëstu ñu xam ne nangu na i'jab yéemal muy lamar bukkaa ahum kon dañ fa dagge min min bukkaa ihim la doonoon mën na itam nga ne ajib kawtéefug yéem bukkaa ahum seeni jooy nga xam ne kon dañ faa dagge baa ajib bi bukkaa moo ci doon cosaan loo jàpp rek baax na dane bañal leen seen bopp li nga xam ne moo dal ñooñu sisir bu ëllëgee ca bis penc ñooñu nag bañ nekkee àdduna dañoo sànkoo seenu dund ci tooñ jaam yàlla yi nga xam ne doon nañ def lu baax sax waaye dañoo mànduwutoon sëg ci tooñ jaam yàlla yi mu ne ñooñu nag sayeboo tàmbalee yéem seeni jooy bu ëllëgee ci bis penc ak seen yaraange la leen fay dal mu daal xam ne nag ñooñu ñum doon waxaddu taflisin dëgg-dëgg sisir la daa mën fakk nga xam ne naq dëgg na xam-xam ay yëtiyee moo di bu dikkee sax su jëmm ja bi amalin ci ay jëf ngadan ci ëllëg kasaw mi ni ki koor wa silati ak jokku bokk wa salaati ak julli wal xajj ak aj wal xumrati ak xumra wa zakaati ak asaka lakinnahu waaye moom xadafa xasoon na haza kii wa akalate mu lekkoon maalan alal li haza ñeel kii wa qatalate mu reyoon li nafsi daa ñeel bakkanub kii warudda te delloof min hutukee ci moom kulluma lépp loo xam ne xadd xamit la jëfoon na ko ci yiw li man jëm ci ña nga xam ne faxala defoon na bihim ci ñoom maa xadd la mu defoon fasaarate mu mujj xaasiran di aji perte faqiran tey aji ñàkk ba da ci gannaaw lii walam yu barra te setalee fu ko su ma uxita topp jàppeef minhum ca ñoom maa la nga xam ne xaddi janaw tooñoon nañu ko mina dunoo bi ci ay bàkkaar naa fii ci àdduna ileexi jëme ci moom kay yas yi defoo ngir mu dolli ko fii maa ci la nga xam ne janaa tooñoon na ko fasaarate mujj xam luxoo yanam ba daloo xan di aji diis laa loxoo deddi ko ñeel lu fatil lu toll ni fatil baax da nasxima ci gannaaw nangu lépp loo xam ne loxo ñeeloon na ko tuma yu saaku topp def na ko jiital ilal xasaa bi jëm ci mbugal ga mbaa ne suma yu saaku topp def na ko màng ilal xasaa bi jëm ci mbugal ga fi niiraani ca sawara ya ba àndal saa ci gannaaw lii bilaa tawaanin ci lu dul yeex kazaalika nii naqal naaxu lan ko toxale xani raïs jële ci kilifa ga mu yonante bi ahadana yal na lu musal allahu yàlla mina tafliis ci sisir ba mu ne bañal leen seen bopp la dal ñee nga xam ne bu ëllëgee ci bis fenc dañ leen di sisir daawal bëtiku xamle ko mu ne loolu de ni muy amee mooy nit nekk ci àdduna gëm yàlla farlu ci def lu baax ni ki julleeg woor ak joxe asakaat ajak xumraat lépp lu baax waaye nag mu boole ca ñàkk maandu ci am na kum tuumaal ci njaaloo ne ko danga njaaloo te tegu ko fenn am ku mu lekk alalam am ku mu tuur deretam xam ne ay ngeen bari na bu ëllëgee nag nee na bu taxawee bis dañuy seet lu baax la mu defoon faye ko ñi nga xam ne ñoom la tooñoon su fekkoon ni sax taa joxe lu baaxam lépp faye ko mu jeex rek mu yem ca mu xaw a tane waaye nee na bu joxe lu baax lam amoon lépp lépp faye ko ba deseetu dara lu baax ba noppi nag am ñoo xam ne fayagu leen dañ koy wax ne ko ndegam amul lu baax loo leen faye dañuy jël ñoom seen lu bon sëf la ko mu mel ne jox nga leen lu baax mu ne kon gis nga ne kooku gannaaw ba mu tàggook lépp lu baax dese képp lu bon dellu nañu sëfaat ko nag yu bon yi ña nga xam ne ñoom la waroon a jox lu baax te amut lu baax lu mu leen jox bu daal yenu yanu bakkaar bu diis a boo xam ne booliwu ca dara lu baax kon ne dara disu ca lu may ñu jiital ko rek yóbbu sawara mu ne nii day lan ko jëlee ca yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addis yonante bi dafa laajoon saxaaba yi ne leen atadroona manil muflisu min ummati fa man laa dirhama wala mataaxa xinda fa innamal muflisu min ummati man ataa yawmal qiyaamati bi salaatin wa siyaamin wa zakaatin wa qad shatama haada wa akala maala haada wa safaka dimaa haada wa daraba haada fa yu'ti haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi wa ida nafidat xasanaatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi uxida min qataayaahum wa turiha alayhi summa yutrax fi nnaar fa haada huwa al muflis rawaahu muslim wa tirmidi yonent bi am njàngaleem day leer te li ci ëpp da koy tàmbalee laaj ko defee ñooñu wax ko lañ ca xamoon ci aada ca loola sëñ bii itam daana ko def lool bu dee bëgg jàngale di leen ndax xam ngeen nàngama buñ ko waxee mu ne ah daa yes na ko wax lool de waaye nàngam nag daa leen di leeralal ñoom ñi itam bi la yonent ne ndax xam ngeen kan mooy almuflis mbaa almufallas dañ ko wax ñoom lañ ci xamoon ca aada bu ñu mësaa tudd baat boobu mu daal leen leeral ne leen déedéet sama xeet bi day koo ci xam ne taxaw nga bis fenc indi tuyaaba yu bare bari nit ki julleeg woor ak asakaak yooyu fekk na am na ko ŋàññoon am na koo lekkoon alalam am na koo tóoroon deretam day am na ko dóoroon tooñ ya bare noonu day yu baax yam defoon yépp moom lañuy ñuy fab di ko fayee ñooñu di ko fayee ñooñu bu fekkee nag yu baax yee jeex na te la war a fay matut ñu jël la ñooña bonle woon fay na leen lu ko ko ndax bu leen gàddulee seen lu bon rek mel na ne fay na leen lu baax su ko defee nag nee na amatul dara lu baax ñu sànni ko ci biir sawara di leen kii day mooy al muflis fa nasalu dana nu ñaan arrahmaana aji rame ji rabbana kay sunu boroom aljalila kay aji màgg subhanahu sorelal naa ko lépp léelul ci moom tawfiqa sunnati rasuli mu dëppale noog sunna si yonante bi muhammadin moo di muhammad fiihina habibina kay sunu soppe sayidina kay sunu sang shafihina kay sunu ajramu naa tey ku ñu yaakaar sunu naa tey sunu yonante salla yal na dolli tedd nga wa sallamati dolli wóolu alihi ci moom sarmatan faaw rabbu samawaati borom asamaan ya wa man ak képp koo xam ne ihtadaa jube na bihi ci moom sëñ bi dafa daaneele buntu téere bi ñaan yàlla dëppale noog sunnas yonante bi yonante bi nag yal ko yàlla dolli teraanga ak jàmm moo képp kuy jéem a ci moom dafa ñaan yàlla dëppale noog sunnaam nu sax ca faw bañ koo wàcc ci genn wet mu door dugg nag ci faslu ni ab dog la fi taxaarati ci laab ndegam lislaam gëm yàlla moo ci jiitu waaye bu jàllee julli moo ca topp te julli balaa baax laab da ko jiitu moo tax mu tàmbalee ci laab inna tahaarata naka laab tahaaratul xadasi mooy laabu xadas bilaa xilaafin jul amul benn wuute wa tahaaratul xabasi ak laabu xabas wal képp nag min huma ci ñoom ñaar bi in nekk na ci am ndox taahirin mu di aji laab mutahirin tey aji laabal yuslixu moom dana yowénal xindal maahiri fa aji ñaw ja waxuwa moom ëllësi mooy ndox ma nga xam ne lam yataxayar soppikuwut saw nu xoo ñoŋam nga nam ñoŋe woon ay li mu ci nam taamu xoo cafkaam nga aw riixu xoo wala xetam nga aw law nu xoo wala meloom wa bi maa ci dara loo xam ne yu faariqu dana teqalikoog moom bi orfin ci aada kadasa mi niki ak ñaay mooy jeexiti niinit waawa dëkkin akuk nekk wa maag loo xam ne ka zirniixin mi ngi mel ne ki zirniix zirniix dañuy wax ne matière la boo xam ne aw doj la wuy puur am tooke daañu koy liggéey nag ba di ci rey xeeti janax yeeg yañ bëgg rey ci soccet njëréer yi na xam waaw wal wasxi akub tër wa zeyti ak diw wakas saabooni ak lu mel ne saabu wasam ni ak diw ñor xul waxal wa nax wiha ak lu ñoom dafa wax ne laab nag day yaari wàll laabug xabas ak laabug xadas laabug xabas mooy laab ci jëmmi sobe maanaam bala ngaa julli wóorlu ne saw yaram ak say yére ak fu ngay jullee dara amu ca sobe bu fekkee amoon na sobe itam dindee nga ko ndox mu mel ne ma ñu jàppe mañ ko war a dindee loolu mooy laabug xabas laabug xadas nag te ñuy firee xadas toj xadas mooy loo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye nag kum nekk ci moom daal li feek defagul yett yi nga xam ne ñoo ko mën a teg teggi dañuy jàpp ne lépp lu ñuy aaye ku amem toj rek aaye nañ ko ko du ko sañ mel ne tey bu demoon ca wana wa raxas fu ko sobe si taqoon ba génn ci bitti fii mu nekk amenam toj te xëy na bu xooloon ga gis soobee su ko taq ci genn wet waaye fii mu nekk li feek jàpput ndegam jàpp ko war mbaa li feek sangul farata ndegam sangu farataa ko war mbaa li feek tiimut ndegam tiim mooy farataam ndax daam am ngànt li feek deful kenn cet yi mu ngeekum toj bu defee la ko war nag bu dee jàpp mu jàpp bu dee sangu farataa mu sangu farata bu dee tiim mu tiim kon dal nay am laabug xadas mooy toj ma yëkkatiku na lépp lu mu bëgg a def ci luñ daan sàkku ak laab wër kaaba ak yooyu mu daal koy sañ a def ñàkk julliwaale sobe nag moom moo gën a woyof ndax am na sax ñu wax ne ku julliwaale sobe te tey ko mën ngaa tàggoog moom it du tee julli ga baax na teewul nag wax ji gën a wóor moom mooy koo xam ne mën naa tàggoog sobe si te waxtu waxatul deful dara faw tàggoog sobe sa ndegam fàttiwu ko du mën a ñàkk ci yoonu Maalik moom du julliwaale sobe ci lul benn ngànt rek du fàtte du dara mën naa tàggoog moom julli ko du baax faaw da koy julliwaat mënta ñàkk jooju wax moo gën a wóor mu ne nag muy laabug dindi sobe muy laabug jàpp mbaa sangu farata ndox lañ koy defee ndox ma itam day laab ba noppi mën a laabal ndox mën naa laab te du mën a laabal ndax ndox bu ca lu laab demee niki ndox mi kafe dem na ci mbaa attaaya mbaa am soow mbaa suukar bay mën ko caa xàmmee kon ndox moomu laab na ci kaw mën nga koo naan mbaa togge ko mbaa sangoo ko sangum toilette ak yëf yi aada yi daal waaye nag du mën a jaamu yàlla mooy doo ca mën a jàpp doo ca mën a sangu farata doo ko mën a yóbbuwa nag doo ca mën a dindi sobe lay tax nañu ne ndox mi laab na te mën naa laabal mooy melowa wax soppikuwut caf ko ga soppikuwut xet ga soppikuwut ca na ko yàlla bindee mbaa boog la ko soppi day loo xam ne loxo doomi aadama defu ko maanaam loola yàllaa ko booleeg ndox kenn mënu koo tàggaleeg moom ni ki ndox mi di wal fa muy romb soppi ko mbaa fa muy taa soppi ko mbaa ndox mi yàgg ba mujj mu am ay walax njaan wala mu yàgg ba mujj mu xeeñ bépp soppi ko boo xam loxo doomi aadama defu ca dara doomi aadama mënu koo moytu dogal baa rek jàppal ne loola du yàq ndox ma mën naa jaamu yàlla nañ ko bëggee waaye nag bu fekkee la soppi ndox ma sabab rek la maanaam luñ mënoon a moytu la daa dem rek ba taseeg ndox ma waaye jotewuñ dara ni ki ndox mi diw dem ca bañ mën ko caa xàmmee wala surniix boo xam ne maanaam lu doomi aadama defar ba mën a rey ay mbóot wala ay yoo wala yooyu dem ca ba soppi ko wala ab téef dem ca ba sotti ko wala diw wala pétrole wala saabu ak mboolem yi nga xam ne rek loxol doomi aadama moo leen di booleeg ndox waaye jotewuñu ndox dara yooyu yëpp lu ci sotti ndox rek ndox ma duñ ca mën a jaamooti yàlla jurniix bi ñu wax nag ne la aw doj la woo xam day puur te am tooke ba mënees na ko defar ba di ci rey lañ bëgg a rey ci xeeti ay janax ak xeeti njëriñ yooyu ba ko loxol doomi aadama soppeegut moom bu ndox ma walee ci kawam wala ba ñu wëggee ca teen ba fekk doj yooyu nekkoon ca mu soppi ndox ma loolu moom du ko yàq ndax doomi aadama soppiwu ko dogalu bu yàlla waaye nag bu doomi aadama soppee doj yooyu mbaa leneen ci matière yi yàlla liggéey gannaaw ba mu ko soppee nag loola soppi ndox ma dana ko yàq moom ci wàllu jaamu yàlla kon jàppal ne mboolem matière yi nga xam ne yàllaa ko liggéeyaale ci suuf si fuñ ci génnee ndox loola soppi ko mbaa ndox mi wal rek romb ci loola mu soppi ko du yàq ndox ma waaye nag bu doomi aadama jëlee loole soppi ko gannaaw ba nag mooy ba mu ko soppee ba noppi loola door a soppi ndox ma moom dana ko yàq mu daaneele laa tiinin du caageenu ban aw xasin wala cepp daa mel ni wala fi ñoo koy firee xas sin cepp waaye boo ko dee xool ci téere yi dañ koy tudde nabaatu tuxlub gàncaxug tuxlubu aw sabxatin wala suufus xorom aw turaabin wala suufus kese aw tuxlabin maay wala mbaala mbaalum ndox bi lortiyaa bi ñu tudul benn sikki sàkka maanaam la soppi ndox ma bu fekkee ne doomi aadama defu ci dara mënis koon a moytu yàllaa ko dogal rek du yàq ndox ma ci wàllu jaamu yàlla mel ne ban ba ci boppam moo xong cooy wala mu ñuul kukk ba ndox ma soppiku mel ne moom xong mbaa mu ñuul wala fa ndox ma taa daa am cepp mbaa leen lu ne xet mbaa leen lu naqari xet ba mu feeñ ca ndox ma mbaa foofa daa am xorom mbaa suuf sa ci boppam jaxasoo xorom ndox ma it daal di saf xorom mbaa sax suufus kese soppi ndox dañuy wax ne suuf moom yàllaa ko boole ndox boo tibboon suuf def ci ndox itam du tee ndox ma mën a jaamu yàlla wala ndox mi yàgg ba mujj mu am mbaalaa mbaal yu wert yooyu mbaay walax njaana yu demee noonu loolu lépp du yàq ndox ma mën nga caa jaamu yàlla noo ko bëggee soppi nga yàq rek mooy goo xam ne mënoon naa ñàkk sabab rekk moo ko booleeg ndox foofu nag nga teqale bu fekkee la soppi ndox ma day sobe mel ne deret wala am saw mu aay wala sàngara lépp li soobe rek bu xasee soppi ndox ndox mooma mënul lu may suuxate ko luñ bëgg a suuxat wala wëggi ko ak jur rek waaye doomi aadama du ko mën a jëfandikoo ci genn wet ndab la ko defoon sax bu ko bëggee jëfandikoo da koy raxas ba mu set door koo jëfandikoo bu fekkee nag la soppi ndox ma lu laab la mel ne soow moo ca dem wala kafe ak mboolem yi nga xam rek ñuy laab kon ndox moomu baax na ci kaw boo bëggee naan wala boo bëggee togge wala boo bëggee sangoo sangum toilette yépp mën na ko waaye nag du mën a jaamu yàlla mooy doo ca mën a jàpp doo ca mën a sangu farata doo ci mën a din sobe bu fa nekkee moom dong da nga ko fay bàyyi te dem tiim nga am ndoxu mel noonu ak ngañ ak am ndox ñooy moo ñu bañ nag di fàtte ne sobe moom faawu ndox ma koy dindi day mel ne ndox mi ngay jàppee nga xam ne yaramam mbaa yéeréem mbaab julikaayam bu amee sobe bu ko neexee njëkk ko raxase saabu wala ndox moo xam ne daal melul ne mañ mën a jaamoo yàlla waaye kon nag gannaaw ba da ciy awale ndox mu mel ne ma ñuy jàppee bu ko xasee fóot ba mu set mbaa mu raxas ba mu set rek gannaaw bu ci awalee ndox mu laab rek dal nay baax du aajoo muy fete mbaa muy bomb ndegam jëmm ja dañoon na arte ba rek fa desoon àtte bi moom su awalee ndox ci kaw rek mu daal doy nga xam ne kon bëggee dem ca wana wa te yàkkamti te amul ndox mel ne mi war a jàppe mën naa doyloo rek ndox moom yor daal dem ca wana wa raxas jëm yu soobee sa dañ te mu farul nag ci balaa jaamu yàlla wutaat ndox mu mel ne ma ñuy jàppe awale ko ci kaw cër ba nga xam ne atte baa fa desoon nag te léegi dañ na ay yéreem tam bu fekkee dafa tilim dong yem ci waaye sobi demu ca bu ko dee fóot mën na koo fóote saabu rek bàyyi waaye nag bu fekkee dafa am sobe soo xam ne sañu su ko julliwaale gannaaw ba mu ko fóotee saabu mbaa leneen lu mën a setal bu baax da koy seetleeg nag ndox mu mel ne ma muy jàppee bu koy salandi moom du aajoo fete mbaa dara bu ko ndox ma duggee rek mu daal di mën a weer bu ko neexee sax bu yàkkamtiwul du aajoo mu di ko nal bëgg ndox ma génn bu sottee ndox ba ndox ma dugg ko rek dal nay doy faslu li ab dog la fi isaalati najaasati ci dindi sobe wamaag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihaa ca moom ida taxayanat ndeem ràññiku na najaasatun sobe xusila kon raxaseef almahallu béréb ba taxabudan ngir jaamu yàlla bi mutlaqil maay ci ndoxum mutlaq laakin na ma taw bu waaye malaan ma yuxusalu def na ko raxas xumooman ci ak matale in ashkalat ndeem lënt na najaasatun sobe yaa rajulu yow waay day wax nag ku sobe taq nuñ koy dindee mu ne ku sobe taq moo xam ci yaramam la